inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla la jóge ci yàlla la ñuy dellu ñu la si saa yi xatin mawti bakkan bu ñam dund di nga ñam dee ak li xaal dama xëy si daj ci dama xëy si vigile bi ni ma ma nuyu vigile bi comme man dama bari kaf ma nuyu vigile bi ça va Babacar xaw a ree Babacar ni teg ma ne ko loo xew mu ne ma man kañ du la ko wax yéegal ma ne ko non du ma yéeg lan la Sidi parce que automatiquement sa xel ci moom lay dem parce que fan yi ñëwul woon euh, en fait feebarul mais lu ndaw rek parce que terewu ko doxi ay soxlaam terewu ko woon tukki dem ñëwaat donc doo ci seen tuddee euh, loolu amoon na choc boobu noonu choc bu ndaw boobu noonu amoon na euh, waaye terewu ko woon sax doxi ay soxlaam parce que loolu avant ñuy gàmmu la Eh, bi lolou amé tamit eh, période bobu yépp nak liggéey siwul nag ndaxte togon nañ ay 2 semaines 3 semaines gisunu ko commencé won na inquiété yenn employé ndax té Sid Lamine amul won jour férié amul won congé amul won presque repos même week-end boo fi ñëw samedi dang ko fi fekk bo fi ñëw dimanche dang ko fi fekk tout temps da doon liggéey rek musul won tok bés yu bëree nonu te daan nañ ko gis fi xan lu dul bu voyager wala mu génn réew mi bimu lolou amé nak commencé won inquiété waaw ci ci ci ci otom la won Eh, ci ginnaw gi sax après ñu ci bëri lu ci bëri ci kërëm la ko doon défé après employé fa lañ ko doon fekk diko ko ak yoy nonu ba li nga xamantene mom lañu xamalé ni tis bi nga xamantene mom mo dal suñ kaw ñun ñëpp d'habitude suma yewu lu matin damay daw ci fuma ñëw né damay pour récupérer son portable di sonné suñu ben correspondant bu nekk euh, Kaolack Alsan Diallo wo mo wo mo bu dama yiw lu may dégg est-ce que neex na mu ne ko lu may dégg mooy lan dama ah, lu may dégg neexuma de mu ne ko même ma vérifier ma taal rajo bi dëgg alxuraan ma taal télé bi dëgg alxuraan sa benn xarit bu tudd Sylvie Sarr ma ne ma lu ma dégg dëgg la mu ne ko li nga dégg lal la parce que man rajo taal naa ko dégguma ko télé xool naa ko dégguma ko mais lan la mu ne ma ah sa xarit nelaw na Sidi Sidi ñëpp la Sidi ñëpp la baax waaw njaboot waaw loolu la wax ci moom amuñu leneen lu ñuy wax dafa bett hmm. bett na de bett na torop sérieusement Walfadjri def naa fi 9 ans jóge fi jóge fi ci condition yu rafet mais li ñuy wax rek Sidi dafa njaboote dafa jaboote trop dafa jaboote parce que tey boo gisee tey képp parce que tey Walfadjri ci si xol la ak foo mun munti nekk ëllëg dafa bokk ci yow bett nañu mën nañu mais dañ koy ñaanal parce que ku ci nekk am na loo xam ne Sidi def na ko ci yow doo ko fàtte ci abadan parce que nit ki la jàngal mënoo ko fay tey ñun ñëpp kuñ ciy dégg am na loo xam ne def na ko ci yow bett nañu nag mën nañ ko mais bu jàmm yàlla nango soxlaa rek jaam ñàkk sëngeem nañ daan ñàkk nañ. weesoo directeur bi mu doon papa si man papa la ci man dafa amoon cofeel ci man ma amaat cofeel si moom man moo ma maye yàgg naa fi mais moo ma fi bàyyi daal moo ma fi bàyyi 2006 laa fi ñëw am na fu ma tegoon daal wax dëgg yàlla daf ma jox cër ma respecté mënuma wax je trouve même pas les mots yal na ko yàlla yërëm te yéexee ñu yàlla bu ko cat jiitu jàmbaar jàmbaar dem na ñu mujj ñoo rek ñoo responsable rek ñu far nañ màggal waxtaan ci wàccaay màggal gi ñëwaat ci gàmmu bi mu ne buñ jógee gàmmu dañuy ñëw waxtaan ci programme duñu change mais dañuy dolli rek fekk loolu mu jëwul am sama xol bi neexul mais bon xam nañ ni daal jàppoon nañu comme ay doomam suñu relation demoon na ba nekatul patron ak employé mais dafa nek euh, père de famille bu uuf njabootam euh, nee naa Sidi ci biir da fay dalal xel fan yi mu ñew rek ma ngi naan sama collègue yi président daf ñoo manqué fii waaye ndax bu ñewé rek day dalal xel dal te te dina la may fit ci li ngay liggéey dina la encourager gëm nit gëm talent wu nit di di di wax ni rek ñak nañu du ñu rek ñoo ñàkk Sénégal a ñàkk monde entier ñoo ñàkk la monde islamique ñàkk na ñëpp a ñàkk euh, ñuy ñaan rek yàlla xare ko aljana fi mu jëm gënal ko fi mu jóge mba du ma ni amatul senegal de mais bala ñuy gisaat ku mel ni Sidi defe naa ni dina xaw a yàgg tuuti. man euh, en fait maay premier emploi rajo bi man la njëkk a jël teg ci bourse door si taxi junior donc le 7 décembre 1997 ba léegi maa ngi fi en fait euh, Sidi dafa doon koo xam ne dafa mës a gëm jeunesse bu je bi commencé boobu jotuñu woon la radio a démarré avec Mme Les Camara Reine Marie Et Père Abdoulaye Lam premier jour mu ñëw découvrir ñu dafa ñëw xool ci salle je je considère la jeunesse. Et il y a les gens qui ont fait le travail. J'ai confiance en vous. Je vous écoute depuis que vous avez commencé. Mais les gens qui commencé le travail, ils ont journaliste. Parce qu'on a travaillé, moi, Boubs, Junior, il y deux animateurs. On a fait euh, le 3 ou 4 mois, le 5 mois, journaliste de réunion. Donc, il a eu confiance en nous. Il a eu confiance en nous. def liggéey bu mu bëggoon. bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo fi njëkk a samp li nga xam ne moom mooy ëttub taskatu xibaar fii ci Sénégal ci ñi ci jiitu ci la bokk. ba pare tamit taxawaay bi nga xamante ne euh, amoon na ko ci wàll googu nekkoon loo xamante ne lu fës la lu ñëpp ràññee la. Euh, da doon défendre liberté d'expression da doon défendre tam également li nga xamante ni moom mooy liberté de presse ba pare euh, contribué woon na ci tàggat ay taskatu xibaar yu baree baree baree bare ba tax na kon fii Sénégal néew na ëttub taskatu xibaar boo xamante ne di nga fa dem te doo fa fekk ay journalistes yoo xamante ni euh, jógee fii ci groupe Walfadjri kon wax dëgg yàlla euh, ñun ñi ngi koy jaa ñi ngi ko ñàkk nañu presse bi Sénégal tam ñàkk nañ euh, kuréel gi di convention des jeunes reporters tam également ñàkk nañu ndaxte ñu bëri ñu bokk si ñun suñuy membre biir Walfadjri la ñuy liggéeyee waaye moom ci boppam Sidi Lamine Niass saa su nekk rek doon nañu taxaw ñu jàppale di ñu gunge ci li nga xamante ni moom mooy liggéey bi nga xamante ni moom la convention des jeunes reporters def ci journalistes yu ndaw ñi alors ci kaw lolu sax ma ngi ko ci jamonoy euh, présidente Astou benu Kane am benn prix bo xamantene joxon nañ ko wal Fadjri muy prix meilleure entreprise de presse bu Sidi Lamine jeton ci année 2011 wala 2012 donc lolu yeb limuy wone moy taxaway bu am solo bi nga xamantene amon nako ci ko ci ëttub to xibaari waye tamit kenn ko xamantene la ko bokon ci ñom la ràññeeku ci lool. muy muy muy ko xamantene biñu bi tok dalay encourager parce que dafa gëm jeune mu nan la day ubbi studio bi da ngay rek daj ko dama damay tàccu dama je don donne à l'antenne muy nit koo xamante ni dalay encourager bi ni njëkkee toog loolu la ma wax yéen la yéen laa gëm gëmuma mbokk gëmuma doom ay jàmbur laa jël teg leen wal fajri kon ngalawaay bu leen ma gàcceel xam nga loolu dafa for ñu koy ñaanal rek dafa gëm jeunesse gëm jeune yi nangu leen mën a jox seen chance ndaxte boo xoolee wal fajri mën naa jàpp ni man maay le plus jeune chef de desk te yaakaar naa ne gëm bi mu ñu gëmoon taxoon ni xamoon ne euh, am na benn capacité bu nekk ci ndaw ñi boo xamante ne dafay day du mënul ñàkk ñu jox leen seen chance loolu nekk na loo xamante ni wax dëgg yàlla euh, nemmeeku nañu kon woon ko ci moom bu baax a baax a baax. man moom euh, suma sëriñ la suma xarit la ëmpalawul nii Sidy Lamine Niass yóbbu na ma màkk chaque année day tànn deux ba trois ba quatre personnes yóbbu leen màkk. man la yóbboon màkk en 2011 ak aw Diop njaay olof wax na ko ku la tuddee doom ku la yóbbu màkk ku la may jabar mënoo ko fay kon mënuma ko fay. ñun ñi nag nga xamante ne ñun ñoo doon liggéeyee ak moom jege ko lool lim ñu doon mës a dénk mooy daanul denc di ñu fàttali li nga xam ne moom mooy ligne éditoriale Walfadjri maanaam la voix des sans voix taxawu askan wi ci jenn jafe-jafe défendre le peuple à tout prix maa ngi fàttaliku réunion bi ñu mujjee tenir ak moom. ñi ngi ko amal bi ñu defee màggal ba pare ndaxte équipe yi demoon Touba yëpp dañu te woon doon def bilan di xool naka la ñuy tiré bilan bi après pour projeté dem ci gàmmu bi boobu moo doon réunion bi ñu mujjee amal ak moom te ci réunion boobu lim ñu doon mës a ñaax rek mooy taxawaay bi nga xamante ni moom la Walfadjri am taxawaay boobu ñu mu di ñu ko fàttali di ci ñaax saa su nekk ñu bañ ko fàtte muy taxawu askan wi xeex injustice xeex nooteel xeex jaay doole fii ci réew mi te loolu mooy li nga xamante ne euh, bu fi jógee tey tamit ñi nga xamante ne des nañ fi duñu ñu continuer du ñu du ñu dëñ ci di wéy di taxawee yoon boobee nga xamante ni euh, moom la ñu tegoon. daanaka ñu mu mujjee yoon yónni message ci la bokk kon am na fu ma teg te message boobu lu ma si tontu dama ne merci beaucoup c'est gentil loolu la ma tegal te naa leen ko woon léegi balaa ngeen dem. message bi démb euh, certainement vers 16 euh, heures 16 heures et quelques Là ko yónnee message mu ne ma merci beaucoup c'est gentil def naa c'est ça veut dire tout ça veut tout dire man daal mënu ma ko fay ko amuñu fayam ñun ñëpp. moom mi génn àdduna sax xam ni bett na ko mais ñuy ñaan yàlla yàlla xare ko aljana waaw di ko jaale njabootam. Sénégal monde entier la presse. Merci de vous abonner à Pikini Production. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.